pour l'inauguration ñetti at laa xawla wala léegi am na lu ñu defe am na lu ñu luyee Kaffrine am na lu ñu luyee Kaolack am na lu ñu luyee Fatick te le coût était à soixante cinq millions soixante cinq millions bon ensuite koo xam ni kii serment ya mu pré présenté woon devant, devant Dieu, devant les hommes, etc. Tous les engagements qu'il avait prix loolu lépp bu ngeen liiree lii ma leen wax da ngeen ko ci gis ak yeneen yoo xam ni bëgguma leen a surcharge waaye dimbali leen ma rek dem leen Google la mu waxoon loolu lépp ak la mu def pendant douze ans li mu njëkk a wax dafa ne Afrique day président de bu fi laaj deuxième mandat boo sàgganee boo demee deuxième tour dañ la gañe ma nga xelam a nga ca ma nga xelam a nga ca Ablaye Wade xelam nga ca Macky Sall euh, ca euh, Abdou Diouf ku fi def deuxième tour dañ la gañe man Macky Sall danaa fexe ba duma dem deuxième tour liggéey ca nag moo ko wax de man deuxième mandat bu ma ko du dem deuxième tour liggéey ca na mu ca liggéeyee il a commencé par des déclaration qui violent de façon flagrante la Constitution et les lois en vigueur président de la République bu taxaw waat ne may seen bàyyi may président yéen sénégalais yépp yéen ñépp la yemale yoon wi ñépp la fi nekkal amul ndey euh, euh, euh, kii nangam amul ñépp a yem ñépp déggu ko nga taxaw ne Kaffrine conférence bu mag la fa toute une journée je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais li ma gën a jaaxal mooy seen mbokki journaliste yi nga yi ma dégg ñu mag du yéen du yéen mag ñi ñuy ŋaw-ŋaw yi booba dégguma ci kenn je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression il viole la constitution il viole les lois en vigueur qu'il avait juré de protéger parce que constitution pouvoir bi mu koy jox muy diriger mais jox na ko opposition pour mu opposer wu la constitution reconnaît à l'opposition ses droits à s'opposer lui reconnaît le, le droit de diriger le pays mu ne ñoo seen droit yooyu dana leen ko xaj ça n'a pas attiré l'attention des gens te mu liggéey ca nag ku weddi laajal Karim Wade ku weddi laajal Khalifa Sall ku weddi laajal Ousmane Sonko dégg nga ku ku ku mel noonu ensuite ensuite du ma mënta ñàkk ah parce que da ngeen dégg ku mel ni Moustapha Diakhaté muy fu mu toll mi ngi naan fen yi Ousmane Sonko lii may wax waxuma ko pour défendre Ousmane Sonko de dama koy wax pour défendre la vérité parce que ci débat yi ngeen di dégg bis bu ne ci la. démb nee na bàyyi nañu ñetti fen wenn fen wi mooy projet amul wenn benn benn fen bi mooy euh, nu mu tuddati le le le népotisme le népotisme est encore là wenn fen wi mooy mi ngi sama kii xam nga tudd naa ko naa ko kii léegi nee na fen fen dafa yàlla gërëmu ko kenn gërëmu ko booy fen doo nekk imaam booy fe booy fen. mënoo nekk mënoo jiite jiite julli booy fen ma doyoo doyoo nu mu tudd euh, kenn du la jël seede booy fen booy fen nangam nangam tey Ousmane Sonko day fen waaw xam ngeen fen Ousmane Sonko fu mu ko commencé ci les quatre-vingt-quatorze milliards de Mamour Diallo il faut que ñu xam nit ñu xam nit ñi ma ne maa ko wax fii mu ne Ousmane Moussa Ba mag la. waaye nag day mag mu réew boole ca coxor jàpp leen ko ma maa ko wax dama moo di mag la mu réew boole ca ko coxor dafa soxor bañ Ousmane Sonko ba tax défendre Ousmane Sonko je défends la vérité waaw comme nee na Sonko day fen an ana moom tuuti rek ci 94 milliards yi nee ca foofale na day fene ma won leen fi tuuti ndax danaa ko gis waay kooku moom il faut que ma jàngal leen ah affaire des quatre-vingt-quatorze milliards fa la njëkk ne day fen day génn li ñu tuddee devoir de réserve ci li ñu li ñu li ñu sukkandiku ba dàqu ko day fen quatre-vingt-quatorze milliards Mamour Diallo yi ba mu ko defee Ousmane Sonko da ko yóbbu procureur mu nangu mu nangu koo jël mu yóbbu ko ci juge d'instruction juge d'instruction yor koy weer defu ko mu ñëw mun ne ko amuloo sañ-sañ porte plainte foofu mu yóbbu koofu nag 94 mi lay dem day fen déglu leen li OFNAC wax l'OFNAC a déposé entre les mains du chef de l'État ses rapports nangam nangam etc dans sa plainte déposée le 10 avril 2018 à l'office Ousmane Sonko évoquait des faits supposés de transactions immobilières irrégulières et de détournement de deniers publics portant sur un montant de 94 milliards et quelques. Après avoir mené ces investigations, l'OFNAC a relevé des entorses à la poursuite régulière, entorses qui pourraient penser à une volonté inavouée de fonctionnaires concernés euh, de tirer le maximum de profit de nangam nangam ak nangam ma wax leen nag li ñu gën a wax nag. madame bu Ndiaye Diakhaté booba mooy présidente moo na remplacé Nafi Ngom Keïta madame Seynabou Ndiaye Diakhaté et ses collègues estiment que les infrac suivante infractions suivantes étaient retenues contre monsieur Mamour Diallo présidente nag ak ñi màndal nee nañu retenir nañu <coughs> infraction yii contre Mamour Diallo déglu leen de association de malfaiteurs faits prévus et réprimés par les articles 238 à 240 du code pénal jeexut de escroquerie portant sur des deniers publics faits prévus et réprimés par les articles 152 à 154 du code pénal jeexut de tentative d'escroquerie portant sur des deniers publics complicité d'escroquerie portant sur les dossiers politiques. Voilà ce que l'OFNAC a dit à propos des 94 milliards. Ousmane Sonko fenn mu ni ca ca loolu lañ jaar ba waaw léegi day kii day euh, devoir de réserve devoir de réserve amat daanaka amatul amatul solo ma wax leen ko vous jeune reporter devoir de réserve boo nekkee ci ci am na yoo xam ne seede secret waroo ko génne waaye dafa am ay loi yu ay convention convention des nations unies pour la lutte contre la corruption convention de l'unité africaine pour le même objet protocole de de de, de la CEDEAO même objet également lutte contre la corruption code de transparence de l'UEMOA qui a demandé à tous ses membres de ñu dugal code de transparence mun nañ ko dugal ci seen loi interne seen loi bopp le 27 décembre 2012 ñu wote loi portant code de transparence dans la gestion de des finances publiques maa ngeeg bi waaye mënuma leen ca wax lépp waaye xam ngeen lu ñu ca wax la ko jiitu constitution dafa insister les citoyens ont droit à l'information sunu xaalis bi nu lu ne nu ne nu daj ko ci fu nuy dugg dañ ko war a xam at mu jot loi bi dafa wax ni fi bi toll ak yépp fañ ko jaaral lépp état bi da ko war a expliquer peuple bi danoo war a xam constitution loolu la wax danoo war a xam convention yii ma leen wax ñoom ñëpp dañu insister sur la nécessité pour les citoyens de comprendre dañoo war a xam rawatina loi boobu loi bi dafa ne boo nekkee ci kuréel kilifa ga nekk fa di dem naka sa dul nga xam ko noppi ca bu feeñee tu es waaye nag si responsabilité dem fa nga ko war a wax bu ñu ñëwee saytu ko muy dëgg muy nàngami xaalis danañ ci jël nàngam neexalale ko loolu la loi bu wax de Ousmane Sonko dañ ko waroon na neexal. xam nga lu mu lu mu doon dénoncé yu mel ni 94 milliards yi ak les exonérations fiscales évidemment journalistes yi du ngeen <laughs> du ngeen d'accord man toujours ndax li xew ak loola man ça c'est pas mon problème mais li li li kii laa leen wax exonération yi ñu daan def ku war a fay 100 milliards nga ñëw waxtaan ak moom jubóog moom ba ngeen dem ci cinquante milliards mu jox la 20 milliards yee fay 30 milliards wala ku war a fay 100 milliards nga def ko exonération total Amadou Ba def na ko fi Sonko taxaw assemblée nationale wax ko ko jox ko détail yépp ne ko yow wóor na la ne amoo ci droit parce que exonération fiscale boobu du yow c'est l'assemblée nationale rek moo ko mën a ñu ne génn na devoir de réserve loola da lañ ko révoqué on l'a révoqué dans des conditions illégales <coughs> illégales donc mu jóge ca gis ngeen Karim Wade Karim Wade enfin je ne mais man voilà buñ ne Karim Wade day ñëw sax léeg-léeg dafa may defi ree ah dégg naa ca keneen ku ne li tax du ma déglu débat yi démb bërki démb depuis da ko wax ak certitude waaw man ah mel ni Karim Wade par exemple c'était le meilleur ministre de son père ba ñu tuddee ko ministre du ciel et de la terre laa xawla wala xawata mu ni d'ailleurs boo jëlee plan tàkkal bi mu nekkee plan plan lii tit ma ni kii kat day xanaa day soog a judd c'était le meilleur ministre de son père Karim mu ni palant tàkkal la mu fa def